déposé pour ñu taxawal ay commission d'enquête parlementaire ci luubal gi ne ci réew mi loolu moo ko tiital waa ji nelawatul lekkatul boo xoolee kanam gi sax da nga ko yërëm dinañu càmbar budget bi nga xam ne moom la war a teg ci table assemblée nationale ba mu leen li lii mooy intérêt Sénégal lu ko may ñu delloo ko ko en seconde lecture loo tax muy annoncer la couleur naan si on bloque moi je prendrai mes dispositions yooyu ay waxu daanu saret la kon ñu ngi rafetlu suñu taxawaayu député bu ñu déglu kenn ci ay donneur de leçon assemblée nationale règlement intérieur la kan moo mun a ne Benno Bokk Yaakaar violewul règlement intérieur ni mu falee président bi amul ku ko ñemee wax ci Sénégal ba pare ñu bëgg a ne gars yi nañu toog jàpp seen njàmbur croiser les bras loolu jeex na ci Sénégal wax nañu gouvernement bu bees 2019 dama taxaw ci assemblée nationale vidéo yaa ngi fii xale yaa ngi koy génnewaat ba léegi ma ne sénégalais yi njumte am na de ndax jox Macky Sall deuxième mandat musiba la ci senegal ma ne woon sénégalais nag juróom at yi di ñëw di ngeen souffrir du yéene de yàlla xam na ni yéenewu ma loolu Sénégal yërëmandi rek la ñu fasal Sénégal ci suñu xol gi mais xam. réalité bi moo taxoon ma ne sénégalais di ngeen souffrir waaw moom def na ñeenti at ak lu ko tegu Séné est-ce que am na sénégalais bu mën a weddi ni senegal yaa ngi souffrir fi mu toll nii ana mbënd bi ana njëgu dund gi ana njëgu loyer bi ana liggéeyu ndaw mi ana paj mi ana njàng mi lan moo dox ci senegal nañ moo wax benn secteur boo xam ne mu ngi dox senegal kan moo ma ko mën a génneel amut dara doxul. kon su ma taxawaatee fii ñu ne waa ji at ak genn wàll ko dese may leen at ak genn wàll googu Sénégal dinañu souffrir encore ngeen war ma gëm parce que dama ko teg fu leer nee na gouvernement la teg gouvernement de combat moom dafa yéex a yeew combat bi commencé na bu yàgg moom daan nañ ko ba sëlëm ko muy doog a yeewu naan gouvernement de combat combat bi doorul tey combat bi dafa door bi mu commencé ay tappale mois de mars ñu duma ko sur le terrain mu ñëwaat élection locale li génn ci urne yi ñu duma ko luy ville bu mag mu ñàkk ko ñëw élection législative ñu duma ko bu gën a métteeti te bu ñu demee 2024 ñu faxas ko mu dem muy doog a yeewu naan gouvernement de combat moom kay mooyee tuddee boppam le lion qui dort et qui ne jamais waaye gouvernement de combat par rapport à quoi et par rapport à qui est-ce que combat bi pour régler problème sénégalais yi la déedéet dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite amadu Ba amadu Ba yor na ministère de l'économie et des finances pendant sept ans tey économie Sénégal xalangu na ba ci suuf ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yi ñu jox entreprise étrangère yi te du yoon wax naa ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Ba la ku télé pendant sept ans taxawal économie ñu ne la un an demi jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la aw may million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà neewoon nañu cent millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards loolu ñu bindal la ko l'homme de la situation nangam nangam mu mel ni waa ji barki démb rek nekkul woon ministère <laughs> ministre de l'économie et des te dara doxul ci réew mi moo wax ko sénégalais man yéen lay waxal sénégalais lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax lan Macky Sall dafa lajj depuis le début xam nga fu mu juume musul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ci la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey la ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom mënul fexe ba développé waaye bu àdduna bi tisoolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé fa suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer dangay bay mënoo développer mënoo créer emploi munoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro nga foo dinga di développé réew ci anam googu ñu naan sa addi nañu premier ministre dàq nañ premier ministre sénégalais ku gëm ni loolu mooy soppi mooy tax ndaw ñi am liggéey moo tax paj mi baax moo tax euh, euh, économie bi développé ndax nga sa bopp dara du dox ñeneen ñi ci nekk ministre yëpp nekkuñu fa woon ministre suñu scandale petrol ci ministre yooyu la jaar suñu skandaal Prodac ci ministre la jaar suñu scandale bi ñuy bëgg a jaay suufu suufu Batrin beeg ñoom seen ci ministre yooyu la jaar suñ ci taxul woon tapé sur la table tey jaay nañ ko ñi am seetlu yëpp jàpp gis nañ ni dénominateur commun bi ñu am mooy kan moo dàq saaga Ousmane Sonko ci ñoom léegi ku bëgg a doon ministre wala nga am ay milliards saagal Ousmane Sonko Macky Sall fi mu fi mu fi mu yóbbu Sénégal fi mu wàcce Sénégal dafa sax indécent ci makki Sall rek la Sénégal eggee fii waxu waaso waxu xeet waxu région saaga suba ak ngoon suñu waxee ñu ne xale yi saaga ci ci Facebook bi déedéet xale yi dañuy développé ay anticorps par rapport ak ay mag yu leen di saaga tous les jours man de kenn mësuma dégg ma saaga kenn gisuma gis gi ma ànd ak saagakat Macky Sall ngay gis ku saaga su ba ngoon jot moo ko pale jox ko xaalis photo ak moom jabaram toog ñu photo foog nga ni Senghor dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdou Diouf dina doon wàcce république à ce niveau foog nga ni Abdoulaye dina doon wàcce république à ce niveau tey saagakat yi ñooy ñooy doxantu biir pale nit ñi suñu buggee wax nañu wax loolu moo gën waaye su ñu jógee waaw goney Pastef yi nangam nangam goney Pastef yi anticorps la mooy yaram bu ko feebar duggee dafa am loo xam da koy développé ci ci biiram pour mën a xeex feebar boobu waaye guney Pastef fi jóguñu saaga kenn guney opposition jóguñu saaga kenn dañuy tontu ñi nga xam ne ci loolu la ñu dëkk suba ngoon moo tax bu dee politique tam waaye ñoom addition de zéro la ñuy jël ñëpp ne dañ leen def ministre c'est pas eux qui vont faire des combats moo ci gagné fi mu dëkk ci ñaari élection yi passé ñoom ñëpp dañ leen duma ay liste remplaçant ñoo leen di duma ban pois politique la ñu am nañ ma wax jël leen kenn kenn ministre yeeg premier ministre yëpp dóor nañ leen élection locale duma leen élection législative kon du ci administrativement du ci politiquement du fenn foo mën a nattee du ci prise en charge des préoccupations de Sénégalais du fenn foo mën a nattee ne ñii gouvernement de combat la